ci Serigne Mountakha Mbacké Bachir ngir ñëw pour ziare si ko le premier ministre Ousmane Sonko ngi noonu yéen ñu ko yéen ñu ko doon laaj mi ngi noonu ñëw pour ki nga xam ne moo di Serigne Mountakha Bassirou Mbacké moom mi nga xam ne moo di am waaw waaw kii mooy le président Ousmane Sonko mi ngi ñëw tey ngir grand man si équipe de communication waaw le président Ousmane Sonko ngi noonu ànd ak ki nga xam ni mooy honorable Cheikh Thioro Mbacké ànd ak euh, ñi nga xam ne euh, ñoo di ñëpp ñi mu délégation bi mu àndal ngir ñëw tey ziar si ki nga xam ne moo di Serigne Mountakha Mbacké Bachir euh, ci bis bi nga xam ne moom la ñu juble di bisub 18 safar ñëw nar ko feete ñaari fan mi ngi noonu di wax ki nga xam ne moo di Azra le président Ousmane Sonko bi noonu ànd ak Cheikh Thioro Mbacké honorable Cheikh di dugg jëm ci ki nga xam ne moo di président Ousmane Sonko. waaw ni ngeen gisee noonu président Ousmane Sonko gi noonu. ginnaaw suuf gis noonu kooku mooy le président Ousmane Sonko di président parti Pastef di premier ministre du Sénégal njiital gouvernement bi tey moom moo fi ñëw. Euh, taxawee fi kasket boobu noonu ngir ziar si ki nga xam ne moo di Serigne Mountakha Bassirou Mbacké ci édition bu bees Grand Magal de Touba bi xam ni moo war a am le 23 euh, août 2024 fii ci Touba dañ ko war a célébrer mu noonu di dugg bi nag xaw naa am tuuti xët-xët waaye nag euh, dayo benn mel noonu la toll nit ñee ko bëgg moo tax ñëpp a ko bëgg laal ñi bëgg bëgg saafonteeg moom ñi bëgg ñi koy safoo ñëpp ku nekk bëgg na ko bëgg naa am ci moom as dara moo tax ngeen gis xët-xët yi ni mu xawee bëre waaye moom dugg na ba pare nar a jàkkaarloo ki nga xam ne moo di Serigne Mountakha Bassirou Mbacké nañ jëlee noonu ala yi indi responsable ñu dugg waay mais premier ba responsable ñëw non du sotti il faut ñoom

mi ngi noonu dugg bi xaw na am xët xët waaye dayoog dayoog nit ki la moo tax eh, ñu xaw a dellu ginnaaw tuuti ngir eh, bàyyi leen ñoom ñu xaw a def seeni mbir ndaxte seen liggéey la ñu nekk tamit eh, ki nga xam ne moo di premier ministre Ousmane Sonko dugg na jot naa dugg ci biir ba pare Euh, waaye nara a jàkkaarloo ki nga xam ne moo di Serigne Mountakha Mbacké Bachir euh, ñu ñu fàttali leen ne tey la fi ñu si ko.

waaw tey lii moo fi xew euh, fii nga xam ni moo di euh, pencum sëñ Basiru di Daaru Minam euh, résidence officielle u Sëriñ Muntaxa Mbàkke Bachir lii moo fi xew tey mooy le le premier ministre Ousmane Sonko njiital gouvernement bi nga xam ne sëñ euh, son excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye moo ko wóolu ba tabb ko mu jiite gouvernement bi yëpp moom moo fi ñëw tey ngir euh, li nga xam ne moo di sargal si ziar si ndokkeel si ki nga xam ne moo di sëñ Mountakha euh, bés bi nga xam ne moom la ñuy waaja moom la ñuy waajal lii di bésub maamam boobule Cheikh Amadou Bamba Khadimou Moustapha bés bu mu xam ni moom la génnee fii gàddaay yi fe nga xam ni moo di Euh, Gabon gàddaayul sax dañ koo forcé gàddaay gi génne ko exilé ko par force ah, mu dellu si waat am ndam lu rëy gi mu am tey ajuma ah, bii ñu jëgmal nag ah, ñu war ko feete laata loolu ki nga xam ne moo di le président la république ñëwoon na fi tey premier ministre Bambali ñëw googu noonu ñëw pour safoo ki nga xam ni moo di ah njiit bi nga xam ni njiit bu charismatique la ki nga xam ne taxawaayam rafet na ci Sénégal saay su bëtu sénégalais yi xonqee dañ ko gis mu yëkkati kàddu mu di Serigne Mountakha Bachirou mbake waaye te jii nag ah, loolu moom waral suñu teewaay fii ngir toppal leen lépp li nga xam ne am na fi ba du ngeen fi du ngeen fi rate dara bu soobee yàlla.